bi mbas mi amé ba nëgëni géwél yépp ak communicateur yépp ñu ngi tok di déglu ba mu né bayi len bu kenn dem bu kenn dik ñëpp tok nañu kenn ku ne tok sa kër kenn demul kenn dikul. ñëpp a ngi tok seen kër kenn demul ngenté kenn demul dëj kenn demul ciet kenn demul manifestation kenn demul meeting kenn demul fenn ñoo ngi toog suñu ngor japp suñu diiné tok gëm li président Macky Sall wax xamni ni bi amna ñu tok japp suñu Morsa léegi nag yàlla def na mbir mi trois mois ngi nii di toog te nag boobu ba léegi demuñu fenn ñoo ngi toog mboolem lu nu yoroon rek bu doon lu nu denc joxe nañ ko bu doon lu nu am joxe nañ léegi nag danoo bëgg président Macky Sall ak ministre bi nga xam mooy ministre de la culture mu jàppale ñu mu jàppale ñu jàppale doomi njeeño yi nekk Thiès yëpp ak doomi communicateurs yi nekk Thiès ñoo booloo nii bëgg président Macky Sall jàppale leen ndax ci mbir mi la nu bokk boobu ba léegi demuñu fenn dëkkuñu ñoo ngi toog plus particulièrement doomu Thiès yi nga xamante ni Thiès lañ dëkk te yàlla jox leen ay teraanga ñu nekk ci dëkk bi ndax te kat communicateurs yi ñu jar a jàppale lañu géwél ñu jar a jàppale lañu ndax lu fi siiw ñoo ko siiwal ba ci mbir mii feebar bi fu nu dem wax ne am na def déclaration bu wóor responsable politique yëpp lanu bëgg ñu ñëw jàppale ñu. monsieur président yow la ñuy waxal yow yaa tax ñu ñëw saku ceeb bi jeex na diwlin ji jeexna lepp jeexna jeex na nu woon ñu tok ñu dégg sa ndigal toog len lenn dematu dematunu fenn amunu lu xew am ciet, am ngenté ak tak mom nu am tubarkal di ca dem di ca fajj sunu soxlo ndax mënuñu bis bu nañu talal sunu loxo ni jox leen ñu waaye tok lo ngeen ñu ba ñu ba mu mat ñetti weer danoo bëgg nak président de la république nga gessu nak gessu say gewel gessu say ñeño gesul say rak gesul say frère gesul say sœur wa jappalé say gewal jappalé wa Thiès jappalé communicatrice jappalé communicateur ay xalé yu ndaw rek fi né sàcci wunu fene wunu moy wunu yalla lu dul liggéey rek dal sen doon dimbali sen jabot kon nak président japp ci ñun nak communicateur yi duñu mën lu dul luy doxal réew mi ak lu jëmele kanam ñu and ci ak mom motax bi nga xamantene téré yi ñëw na ñu top ci amatul benn manifestation bu ñu dem tey nag géwél yi ak communicateurs yi xew-xew la ñu am ak seeni i géew ca la ñuy jëlee lu ci bari li nga xamante ni fa la ñuy suturloo waaye nag bi mbas mi avec léegi gis nañ ne sunu ministre de la culture nga xamante ni ñun ñii ñëpp ci moom lañu ñu dépendre nam ñu war a taxawoo ah egseegul ci ñun ñuy interpeller président di ko ñaan communicateur yaa ngi xam nañ fu mu teg Thiès xam nañ ni mu fonke géwél xam nañ ni mu fonke communicateur mu jàppalewaat leen nag ndax nag ñu mën a amul loo xam da ko suturloo amul kenn ci ñoom koo xamante ni fii bind nañ la ci mi nga xamante ni mooy affaire kit yi ñu war a joxe ñoo ngi toog ñoom ñëpp sàlloog seen ngor président nag li mu ne woon mbooleem koo xam ne yëf yi impacté na la danañu wax ak sa ministère ñu xool la ciy jàppale ñun nag ñi ngi xaar tey déglu nag tey am yaakaar ci moom ngir mu jàppale ñu bu baax ci li nga xamante ne moom fii di interpellé ah ki nga xamante ne day gis seex la njaaxaana di tëdd muy madame Marème Faye Sall ci li nga xamante ne mooy yërmandeem ak suturaam gi xam am na ko ngir yéene ko sénégalais yëpp ñi ngi xaar daal Thiès daal ñëpp ngi taxaw di waat ci président mu jàppale communicateurs yi jàppale doomu géewal yi ngir ci bas mi nag sonn nañ torop